addina moo di këru seytaane maa la ko wax bis boo xëyee jekki ngir daw lor ñu fekk si la te donte sax boo tëjee say buntu mucc ci lor nga wax ni say waande boo dee tëj ñu fëgg si la te donte sax bëgg yàllaa tax ñu dikk fi yow kon yàlla dimbali leenus lëf te dimbali la boo nee damay jàpp saa njaambur gi tey duma wax seytaane daw dal di fam nit ñépp xëpp si la ñuy soowa kay jëwa kay wasaan kay waxi can boo àndul ak ñoom itam ngay dégglul safu la te xam dégg lu bon ak muy la boo ko tayee kuy def lu bon ak a wax na kenn yéesatu la man koo ma luy texe tey man koo ma luy solo tey ay daj da àddina ji loo daw dawit réew la man koo ma luy texe tey man koo ma luy solo tey ay daj na àddina ji loo daw dawit réew la saytaani àddina banneex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la say noona ngi yaa ngi nii boo kër këree ba ñu daw loo mën di sàkku lu rëy rëy rëy mu jàppandi la koo xam ni dàqagul yi noonam du jot mébétam ak dëggal ngi saafaraa ngi mus ko ndax wéru la génnal ci say pexe ak say mbir te jéeb buy lefar sa yépp tey aw ndigal lii it ba tey pexe la ku nekk ak la mu man bul jéem a fab say mbër di yenn sa bopp fa balloo man njegam dofu la bul nekk fii bëgg a fab say tànk teg koo ca ndar tegal sa tànk bi fii ngay jot te waaxu ni la mboolem ku yegg ndarit waaxoo ko yeggale ndar te bul ni cëpp fa ndar kuy bay di tëb bayu la bayal te bul weesu benn digg boo defarul ndax yàlla jox la dugub joo xam ni ëpp na la bayal te bul faale coona mbay amul solo sax amaana mbay ma bu sottee ñépp jëgg si la mébét mi ngay daba gën mboolem mébét yàlla raw ku jëm ci dex bu la koogus ndox rawee loru la murit bu nekk pexeem ak coola yam bu jagee ku daa waxu bonam it ñëw naa ko kenn gënu la bayal ndigal la xasaayoo muñ bañor li asal kon képp nit ku la daa yab dikk moslu si la bul faale yow ku la yab bul jublu it ku la xas bis boo faloo ñi la daa xas ñépp tagg si la bayal tegas ba sa digg ak yàlla ak sa sëriñ ñor xom mu bënn përëj kon ñépp jóg dagu la wutal lu mel nii li lee gën lépp loo mën a wut kuy wut la nee nit wutal lii yow njëgam fawu la aw far bu dee wut lu dul fam daw sa yóbbu këram moo dof ba dee nde lu dul fam daw sa ak ubu la koo xam ni ndaw si bu toggee rekk jox la nga bég te dal di tëdd asal doo jël nde jomb na la ndaw saa ngi nii togg gaa ngi far wu nekk a ngi nii di bég ci toggam gi bul bég yow njëgam jëlu la yow boo xëyoon boole ndéegoo kiy añak njoganal far reera lay te ji te jëloo it waa ji jël gaña la yow boo xëyoon boole ndéegoo kiy añak njoganal far reera lay te jëloo it waa ji jël gaña la boo ndéeguwul wan añoo réeroo mosoo njoganal te jàpp ndaw sa jëlit ndam lépp topp na la nun yàlla na nuy déggu añ reerit te mos njoganal te fab ko jël may nu ak mat yàlla mankiwu la fa ndaw sa jëm ndam la jëm foofee te dootu fa jóg yàlla nan ko jël faw nangul yàlla lëftawu la man yée naa ndaw si mbooloo mépp yàlla nañu jël ku nekk xañ na te ngir ab jant ñépp ci la ku nekk yal na ko jël féetal ko nag fa këram yal nam ko jël nu itam féetal fa këram maka la ndaw saa ngi jaayu akub taaram bu rëy ku fexee def lëf lu dul jël ko bul digluy waxam gone la njegam dangaa bëgg nag yow ndaw se nab la bàyyil bokkaale yàkkamti dencub jur ko def nabu la luy tax mu nab la defal luy tee mu nab la bàyyil amaana kon lee mu fab yéppam te fekk si la ruujal faral tëgg lu jëkkum ceebo dellu sa kër di baddalee ka defar ndax sam nawet di rafet bul bokk mukk te ñay def gu mu mel ni ñu dee bam ceebo ñëw ñu gëlam ñàkkum nawet di tawat ku ñaani day teel a jóg njortam rafet mu sawar ñu jox ko mboolem la muy ñaan ak la ñépp di wut ku jëkk a jóg jëkk a jaggul mujj a jóg laxasul te jóg ca njël bay saw sa jël ci jàngu ba set bul yeex a jóg ndonga luy yalwaani yeex a ca bon sarax samat naa di tontam muy toxañ na gi gët farloo rafet moo warab lar bépp lar bu ko def am ndam ñu tagg ko ŋàññam rot ñu naa ko tawit di yeexeru jëkk sërxal ak di sàggane mbay bay dox di laaji sarax ak bon gu ëpp la gët farlul te sonn ku sonnul sonle son ma rafet ak góor dafay sonna kay farloo ka noppalu nit ku bëgg a tëdd te def ab tëdd tëdd dafa dof sonn ak torox lañu daa sàkku xotira nga xarit koo gis mu gën ñëpp dawul dox di xëy ni galas di def yoxey nee na kay sàggan ba dee si ko jot te fit wi dëral ko ak njàmbaara lay taxa am ndam ak ngërëm ab ragal baaxul du làq mi gët ku dul xaree ka wasal ñuy dox di dam mi yaxam na jéema muñ faw naa jog coono muñ gu rafet boo jaamuwul yàlla ngir jëmmam ja jaamu ko ngir firdawsi mii fees a ciy taaxi wurus ak i leer te fees a ciy cant ak tànnee fi jongama yi yaram nga day leere nii seetoo ci jant ki weer nga làq soxna yu mel nii dox fi junni bi wéy te bis bu nekk si ñu gën faataaru fa patikaar ngay dolliku ngóora yow foo tollu mel nii ci gan ñuy dolliku jongamaa ku xëy lee ma taxaar sa benn lal dana day foofee ni lay dale fii ba jàpp nag asamaa was yàlla fii nuru mbaar nga toog ca kaw lal ya yool yay dox di daw ci sa ron ngay naane koo ki wurus foo tollu gis lu la waar foo tollu yàpp wu doy woo faytu nekk fi yow doo fex ba daj kenn yax doo gis bu tiite ki faar garab yëwër la te seeni cëgg nekk fi yow doo sëgg doo yóotu doo gis ñuy yolam ak dër ndegam da ngay tëdd mbaa ngay jekki mbaa nga taxaw yëf yëpp toll fi yow loo bëgg dal di ca jaar ku yàpp loo xam ni dootul yàpp mukk ak a jee di jënd addina jii giñ naa ni moo gën a réer xasab ca ajjana moo gën fapp addina jii ak yëf yi nekk ci biiram ajjanaa gën a seer te tabbi ajjana gis yàllaa ko dàqati nag gis yàlla mag gën a rëy yàlla nan ko seer bu leer xamal ni taalu bi diine may gëmub sëriñam jokk ak juróom ak mbiram doyloo ko aw ndigalam murit bu yewwoo te dëggal day defub sëriñam ni yàlla jox ko xolam jébbal ko ak fitalam fital ga moo di fexee ñoddee ka jañte mënoo bay sikki saf sanga kay léemoo ko dox diggalam murit bu dee léemu boppam booba yor na mbiram nangoo naaw jàngam ak boppam ca ab sëriñam murit bu nangoo mbiram yor jaaji fay la ca war te wàcc koo ki mbiram saytul keneeni mbiram mooy goo yëgul gën a rëy mooy goo xamul gën a bon lii tax murit bu ne jooyoo kub jub ak njariñam murit bu bëggee dajee kub jub dajub sëriñam jot ci xolam fawu day muñ mbër mu neeku yiwam tawféexi bépp murit boo man di dégg ak a gis waxtaane ab sëriñam doyloo ko yam ci mbiram jabar du waxtaane aw far moo na am muritit warul di waxtaane benn sang kay wut a xam murit jabar jaama ko dag képp képp ko ci wax wax ju mooy kilifaam ak juuma tax na ko xam jabar murit jaama ko dag ñeent ñii bu ci ñee ku dul ka am kilifaam ak yar bu rëy bu ñu xam ku dul ka am kilifaam ak yar bu sell bu rëy amul lu dul accam ak cam yal na yàlla yërëm boo dee fexes lëf lu dul sab sang yow sa sagoo sab sang dénkoo ko lenn lee nga ñàkk xoram sëriñ balaa sax ci sab xol yow nga sax ci xolam tegat ci lépp lu dul bànneexam ak ndigalam yow foo dajeeteeku nit jàppal sa bopp bu wér seytaane mbër la te foo jekkeeku nit ma nga fa te fu jullit daje bay waxtaane yàlla di bét fa lay gënee loru nit ndax kenn foogu ko fa ab sàcc boo ko yëgul foogoo ko lay gën a bon te sàcc rekk la koo koy yëg mu daw sori fa maag jaxasoo ngir waxtu woo jaxasoo di gis ku lay lor di gis koo lor nga lor loru fa nëbbul berul yow te doyloo yàlla wëlli su nit bërëb bu mbooloo dajey xoolee ka wax dara fa fufuw jullit daje diglul koo fa dégg mu wax ak dëgg jàppal ku wax aw fen nga reete ba fa ak yar bu sotti bu ànd ak dëgg moo mata yor yii yaari yëf ku ko yor fu mu jékki-jékki ji fa na ngay naxante ba doo mooy yàlla doo moyu nit bis bootalee lii ma wax jaaral fa yàlla ne fa te bul naxantee ko nit bay def lu yàlla dégul bul dam dégum surga nag bay jot merum kilifa bu kenn wax lu amul bay tax nga naa ko amul koo gis ci mbooloo mu naa nit fen nga kët gënu fa bul jépp kenn te bul jayit sa bopp bàyyil lu dul la yàlla dogal kon foofu dem tane fa fub dëgg jëm na nga jëm foofee ngërëm fa la jëm fub dëgg mooy na nga mooy foofee ngërëm niw fa foo gis ku xel lu ngërëm lay wut du wut lu ko moy foo yëg werante wa gaawar daw ngërëm niw fa werante seytaane moo koy sooke mbaate ndawam ku wax bu dee dëgg mbaa muy fen ëral ko ko fa ku fen fi yow bul taxal bul dàq bul toraxal te bul gëmit suturaalal fen wa ba mu jóge fa te bul ko jëw it gannaawam kon mu yóbbu sa jëf njegam ba woo na fi yow it yàlla mii ma nga fa feejant bi fenke ak fee muy xoloo sa yeman yilif ko ak laxasuy yalwaani laa yamale feejant bi fenke ak fee muy xaloo sa yeman yilif ko ak laxasuy yalwaani laa yamale ku dul ka bind araf xam naa ni faj fi ma lëf ku man di ànd ak ma nit day mujj teg ma fële samay moroom a ngi nii tey jii di jeeg fi man te ruugi buy rot ñu jóg jébbal ma yàlla mi le noo ngi di waxtaan a kay tàppante fees akareer te ruugi buy rot ñu dal may wéer a kay gasalit koo xam ne wettali koo nag lëf lu dul sëriñam ak yàlla waxtu dee ak wéet a koy lajali bàmmee la raglu te moo lëndëm te doo fa des ak lu dul sa jëf ja nga daa jëf ay balul te bale na yàlla seere ni jéggal naa jullit bu ma mooy ku di jullit na ma jéggal ndax nu raw rawale sunu xol ak sunu cër yi yépp yàlla na set ba képp kuy dee boroomam dal di fa bégali ku jinn toppoon itam tartil fa dee di nuyoo nga seeru kenn ku naa man maa la koy fajali baadoola ak buurayam ay biir fa dee di nuyoo du kenn fay xala am fa cat bu koy fajali lu dul ragal yàlla rekk ak topp yàlla gu wér du faj fa dee di nuyoo la dëgg gaa ngi ni le la ngay gënew nit du mbooloo kat mu topp ci yow mbër gaaya koy taja kay wër tax ci koo ubale la mbër di daanay moroomam day na ciw yaramam du nekk cim wàll yaanam yàlla xam ne li le yeflul ba def mbër mu wecciy wàll yaana ci mbër te bul defit mbër mu naa moo man ku may bërele fexee la def mbër mu doyloo yàlla wëlli su nit bul dof ba doyloo sa bopp ak gaaya lay fexele ngir képp kuy fexe boppam lay fexee rafetal doo taaru mukk te foppoo yow sa jëmm jile kuy sang aw yaramam lay sang songu la yow sangal sa bopp ba nee faakaara sang bile kuy sang aw yaramam lay sang sangu la yow sangal sa bopp ba nee faakaara sang bile te doon te addina ji lay xëy jëfal bu mu tee ngay kër këril yàlla yow faw ak sa doole jile bu dox di sukkandikoo kenn ak jëfam ba jëfoo bàyyil ku nekk sa jëfam jëf nag sa jëf dajale bàyyil sa baay ak sa ndey ak seeni jëf te fexee jëf jëf ju gën seeni jëf yow bay faloo ka fale ka tekki moo di ka baayam ak ndeyam di ndamoo ndekay ndamoo ndeyam ak baayam du tekki file ku bëgg am fi le ndam ak fenn gëm sëriñam topi waxam kon mu am ndam fii te am ko fële baaxal ba dee fi la ngeejoo seen a koy wuta xam te xam ni kuy xaste ak kuy tagg ngay yemale baaxal ba dee fi la ngeejoo seen a koy wuta xam ba xam ni kuy xaste ak kuy tagg ngay yemale banaa bépp buntu sang ñëw fi sa bunt bi danaa am li may wut mbaama dee fi sa bunt bi banaa bépp buntu sang ñëw fi sa bunt bi danaa am li may wut mbaa ma dee fi sa bunt bi te saa soo ma nee dellul ma dellu te dal di ñëw bu may dem di ñëw ngir mbàkke yow daala fi fabe lafañ sax ka koy toggal akay togg lay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe ku dul yow dafay suufee la kay xañe ay yëfam te yow nag dangay suufee ka jox ñépp yaata be lu baaxee sa mbir yow lépp loo xam ni taaruwul du yow du sa mbir nekkoo ci àllu bañante bi te ñëkkoo fu ñuy xiiroo ka soowoo ka def lu bon dangaa dem fa yàlla jaamu génn nga gott bi dangay dex gu laabal ñépp ñun ñépp yaanutee tilim yaanutee fee fag lu soo fag lor ak sobe na ngay dund kay wér faw yal na la yàlla may li ngay wut ci bépp lar te yàggal sa dund bi sa dund gi moo am ful la am bopp am njariñ réyal nga lu sew baaxal lu bon yaade sang bi defar nga ñi baaxul ñépp kenn xamatul ku bon ku jóg nee fi ndax ci buur a am moo di xejj bi dangaa fekk yow nit ñépp ak mbir yi bokk lëj nga lijjanti lëj-lëj yépp yaa jiitu yaa ko be tabaaraka rabbul xarsi fii naa wa fii ku moo saxal nu ci mbir ubbil nu faw sa bunt bi ba bamba demee firdaw si jekki nu des fi nu naa dina ji neexeeti wax leene dongo yi ba bamba demee firdaw si jekki nu des fi nu naa dina ji neexeeti wax leene dongo yi ci gën ci nunu jur gën ci nun ñépp faf ni mes na kenn di bànneexooti wax leene soppe yi ki dàq ndox ak ñam dàq lépp bu nee melas nelaw yi na muy neexeeti wax leene sang yi ka daa joxe attaayaa ka béglee bu feeñatul lu nuy defatee kay wax ci dunyaa lu dul bayyi nanuy def nanuy def xóoma sax gaayi nun fu nuy foreetiku seddub xol ko njaxalaf ku dul tayyi fu nuy jële waajoo xam ni moo ëpp am nawet njariñ ca du joxar bee ka bodde ni ceddo yi fu nuy jële waajoo xam ni moo ëpp dex njariñ te gën koo yéwén ji waaye tedd ko gis tëye fu nuy jële ku yal xam-xam ak diine ak alal lu dul ñàkk bay daanoo ko jëm suuf a kay laye fu nuy fore sangub sang yépp te buy teral sunuy xol ba mboolem xol yi sedd na tax nay fu nuy fore kuy far rag ji xol yi te far sunuy rangooñ ak sunuy mooy tey balaa jant bee soy fu nuy fore kuy jar wacc baay ak ndey ak xarit te jar wacc mboolem nit ñi ngoy ca ku dul jaye fu nuy fore kuy lee biire nit di ko nax-naxal ba jox koy njariñ teexal ko wax leene dongo yi fu nuy fore kuy lée biir nit di ko nax naxal ba jox koy njariñ teexal ko wax leene dongo yi xarit fedd lil gëm fedd lil laxasaayati te dadduñu lay suxloo ka suufoo ka ñormati xarit fedd lil gëm fedd lil laxasaayati te dadduñu lay suxloo ka suufoo ka ñormati walli akub yonnant akub saaba ak ku mas nu ñokket wutik jub nit ña sam ko di xëppati muñal nit ñi muñ seenu yiw ak seenu ay bu wér te def na bukat boo xam ni kenn du la xelmati ku dégg ni tànjang képp koo xam ni déggulit di tàndale muslul ñépp bul wóolu kennati ku xam wax ku réerit wax li lay xew ci waxtu yi na ngay sàmm say wax ak sa jëf foofu nekkati na ngay peese say wax peese boolem ña ngay waxal te peese ña koy dégg ak ña koy xal di dégmati ku ñuy diglu day wax tuuti tuuti lu am njariñ te wattu di wax loo xam ni day ëpp a yëkkati te yàllaa ngi lay digloo ko sàmm ka teg bëtam te doo raw bëtam tuubal sa mooy giite santati lu nekk fi sa xol yàlla xam na ko loo defit mu gis loo waxit muy dégg yow doo ko réerati tëjal faw say mbóota isakee faw tëj gu wér ci sa xol te bul wax lëf ku wax lëf ñu yalmati bu ñuy yalmatis lëf dal di wax faw dal di fen ku nekk di déeyaatee kanaa maa ko dégmati defal nit ku xam nit ñépp tey nit ku kenn xamul bu kenn gasa gas say mbir ba xam te lu wóorati defal nit ku xam nit ñépp tey nit ku kenn xamul bu kenn gasa gas say mbir ba xam te lu wóorati xamal te boroom ak say moroom ak sa bopp yow te sax ci wayag yooyu waajalaf du ko wëlbati na ngay laxasoo kay feddlig laxasaaya kay rafet njort bul geesoo ko bañ ku la ñormati na ngay laxasoo kay feddlig laxasaaya kay rafet njort bul bul geesoo ko bañ ku la ñormati sëriñ bi aaye na jëw yoneen ba aaye na jëw te yàlla aaye na jëw ngir jëw dafay alake jëw mii dafay joxe ay bon bon di rekki gëmit luy rekki gëm di joxe ay bon bon dafay alake ku di jullit lu mu bon bon bul ko jëw bu ko yab yabub jullit jëw ko day suufee la koy alake ku dolliwul sab liggéey it bul ko fab joxe def te fab sa dàgga di lukkat mbir la muy alake jullit bu dee jëw moroomum jullitam dafa dof ngir jàpp saw yiw di jox nit daf la koy alake doo nit ku yow ku am xel mukk muy jëw nit ku yow gis tee ko muy def mukk luy alake sëriñ bi mooy yow yal nan yee ba dootunu def jëw ak lu koy nuru sax ak lenn luy alake sëriñ bi dee su ko gis muy jëw te nanguwul it ku jëw kilee dif sëriñ moo fekk lu daa alake dindee fi yàlla yi yépp ak yàlla yal nañu faf di def lu nuy neex a koy wax faw kenn bañ a ba reenum ndigal ku ko dog gën ñépp yal nanu dog reenum ndigal faw ngoy caangoy ba dootunu ba ku bëgg kee ngërëmul yàllaa di kee ku ko am nit ñépp ngëb la te doo séerooti it ku la ba taamul ngërëm faw taamul yàlla taamu gu wér kon ñépp taawu la loo taamooti kenn du ko ba aye la aaye sa bopp ak ñépp lépp lu bon kon ñépp topp la mboolem loo teree te ñu ba ànd ak yaway la ma nar ànd ak yaway la ma fas tàggoo deful lu ma pas-pas naa te fecciw ma làmboo nga lépp njariñ làmboo nga lépp ngërëm làmboo nga lépp lu baaxit loo sëful sëfuma jubal nu jublu nu jublu jàmm yaa bari ndam yaa sàkk ndam yépp ndam loo gis sa doomi ndama jubal nu jublu nu jublu jàmm yaa bari ndam yaa sàkk ndam yépp ndam loo gis sa doomi ndama may nuy keraamaa ci xar baax ak yu nëbb yu rëy ku nekk may nga ko lëf doo gis ku naa amuma xooxoo ku nekk ngi dëj ngir yow ma séefu la gis ku mel ni yow yaa ma saf yaa tax ñu yëkkati ma tàbbil nu fa garabu firdew si ngay nuru yow man maa ngi riigu fi sag ron-ron gi sa piw ma ay dootu am mukk ngir yàllaa fi nekk di def te jàmm dong nga ku yiw lay def wérantewu ma saytaana bañ na la bañ koo xam ni kenn mësu ko bañ kenn raw nga ko biir ak biti mucc ci moom reeloo nga yonnin ba reeloo yàlla def nga lu rëy lu kenn deful yaanu gën moo tax nga boole nu tiim ñaanal nu yàlla mu may nu may gu yéemu gu rëy nga teg ca may nu lu ëppum xel lu tax ku ne luum tuubaa njariñ lu ca am tabal ko fawwu ci nun te def nu nag faw nuy tuubaa gu rëy gu ni xiim waabal nu seytaane wumbal nuy weñam ñu ni mes dakkul nu it jépp waayam yow ki génn loxoom bañal nu bañ lenu gépp mooy ndigal gu ñu xam ak gépp mooy gu xameeful may nu topp gu woom asil nu naataa nga faw ak cant yàlla gu sax ak ndole na xiiwal ak gànjar gu ñàkk moroom yëgil nu yéeri yi sedd xol yi dal sunu xel te may nu lépp lu nit moom ak lu nit masa moom tawal nu waame wu rëy wuy dindi wépp maral tey indi naataanga ak xéewal guddul dogati xol yaa ngi sedd te xol buy sedd yaa ko waral wutal nu teena ki géej ak dex yi dul sarati yaa fiy defar waaju bon tey fekk waaju koyan nga def ko gër mi ba foo koy gis ma ngay sarati mbuum ak sëbëg fasu far yii rekk lan fi xaman tey naari góor ak i sant ak jur gi noo ngi koti darum darab bu nooy ak fajaas ak bat la yaanu ko may yaa koy xi dàq wasal nan bég te bun merati darab bu nooy ak fajaas ak mat la yaanu ko may yaa koy xi dàq wasal nan bég te bun merati ba ngay xaree ka dagoo kay farlu noo ngi nelaw ba yàlla fal la ku mer sak fal na muy defati yeewal te feddli say baadoo la yaa ko yeyoo dawal nga jàpp noonu def nuy lar yu dul dawati bandaarawantee ko wax naa moo ku xam ku nu gën yow yaa ngi noppi te koo gis naa ko bul waxati moo tax ba ngay sog a jóg nuy wax ni kii dafa dof nga mujj far dinu faj gii ndof lu muy lorati mboolem ku daa wax ni yaa daf kooka moo di ka dof yow yaa di nit te ku dul yow wax ma lum fajati yaa ubbi dënn yi dundal su naray fi bi daa lii tax nu waaru te naa bii def du bay sayati yow tas nga làmb yi daa gor jàpp mbër ya defi murit yu mokk yu delluy mbër yu dul tëbati sàccak bandaane la dee faa def lu yaa ko tuxal ba xam ni kenn gisatul sàccak ku fiy bandati njaaloo kafen ak a fakku fakku konkub juddu yaa ko setal ba déggatun pile kuy njaaloo ak ay fenati njaaloo ka fen ak a fonkub judd yaa ko setal ba déggatun fi lekkuy njaaloo ak ay fenati toroxlu ak suufe ak faj soxla moo di sa kër te kër gudul gile yow dootoo ka koy duggati yaa dëddu lépp lu bon yaa jublu wépp yiwit koo xam ni roy na la sax dootul jigéen moyati dogante ak yow kajoor ak njaambur ak bawal ak fuutaaki saalum ak yi waaloo ngi fi asati yow yaanu may jàmm tax noo jekki yaanu musal reyante daana fi am tey kenn du jóg reyati neexal nga bëstul bi may nu teel bee kiy dërëm téeméer kiy junni dootoo gis ku koy nawati xam ngay walaf bu fi bay am junni yaa ko waral ku topp waaju la mooy kookee du am ndamati ku bëgg ndam na la xam ngir yaa di koy maye ndam ku bëgg a jóg na la xam ngir yaa di koy yëkkati maawaaru ngir yow te yow day tax nga tey nga wax ma lu xew ba man mu bon mi le may woonit mu naa jaxate maawaaru ngir yow te yow day tey nga wax ma lu xew ba man mu bon mi le may woonit mu naa jaxate sëriñ si jéggulu kuy lim seeni tur du ko xam te moona mboolem sëriñ soosee ngi lay royati waa màkk dikk na ak waa misra tey muritu yi lay murit ku ko am moo jaalu muy bëggati yow waane doo faale nit doo faale it amu nit doo geesu yow lëf lu dul yàllaati doo bewati ku yàlla yor dootu bew ngir dootu gisul lu ko moy te dootu xàmmee ku koy soof ak ku koy safati ku lay tagg ak waaja fii xastee fi boo ku yemoo ku yàlla tagg ba wéy dof yaa ko fiy xasati yaa jaamu jaamu gu wér yaa fàddu fàddu gu wér yaa jiitu jiitu gu wér doo gis ku lay jotati yaa maandu maandu gu mat yaa farlu farlu gu mat yaa yegg yow fa nga jëm moo léegi foo jëmati yaa werd yaa jàng yaa xam yàlla yaa ko ragal yaa julli yaa sàmm yaa am ngor ba doo bewati yaa sell yaa texe yaa am yàlla yaa amu nit yaa saytu sun mbir yi yaa baaxit ba doo bonati yaa sedd yaa tabe yaa am xel te yaa amu fit yow tabbi ndax doonu may xiiwal gudul dogati bul muslu sab sang ak jur dee ko muslu ngërëm murit bu dee muslu sangam jur du mus ngërëmam mosal ko sag jur te musloo muslu ak juramit lii lay mosal ngërëmam yow mii tegal la meram te muslu kenn warul waane sëriñ dafa raw yow sab sëriñ bu ko wax la foo ko gis ndare am te lépp la lu mu lay wax def ko nee ko na xam te bul ko bëggal lu dul jëmmam ja ak ndigalam te lépp lëf la mu lay wax def ko nee ko na xam te bul ko bëggal lu dul jëmmam ja ak ndigalam tey ngir mu jub maa ngi kuy aw menn ngir mu ko moy na xam ni aw na ngirum seytaane ak bakkanam koo gis awul mile ngir it bëgg na muritam awal ko ngir mile moo tax ngir mile mat a jëm amaana boo ko teree fiw nit nga gis ku ni mbas te lëf taxul mu ni mbas lut xol bu bon bu tilim amaana boo ko teree fiw nit nga gis ku ni ku ni mbas te lëf taxul mu ni mbas lut xol bu bon bu tilim amaana boo ko taree it gis ku jóg ni ma dem ngir nit bu baaxul bu dee see waare faw mu dem amaana ngay gis ku néewul mbas jógul dem itam te boo ko dee tari muy bërxal ci biiri waxam seytaane waxtu wu dee see nodd muy gàmmu xel te waayamit waxtu woo dee waare muy fabu cam seytaane lii di mbiram demtil batil ku demit dafay fexe naxa nax waayam bare ci gëmam sëriñ bi yal nan tegal seytaane ak ku koroy te boole noo boole ak boppam ba nuy yaramam yal nan ma it ngor aku njébbal gu wér gu rafet te fàtteloo sunu xol loo xam ni lii du mbégam yal nan tegal sunu diirub dund mépp meram yal nan ma it mbàkke tey jii ak ëllëg ngërëmam jugal fa ñépp di buur buur loo ko soo wete dem fa yàlla nekk ci xejjam boo bëggee yaatu jugal fa ñépp di buur buur loo ko soo wete dem fa yàlla nekk ci xejjam boo bëggee yaatu fa yàlla nekk ci xejjam rekk moo mata dem foo dem fu dul foofa it doo sant doo yaatu fa yàlla daala ki xejjam nekk boo fa saxee sa xol ni guy yi nga am jàmm ngërëm yaatu fudul fa yàlla ke xejjam nekk boo fa demee gis gis ñuy bañante ka ñàkkug leer ak yaatu fudul fa yàlla ke xejjam nekk boo fa demee gis ñuy bañante ka ñàkkug leer ak yaatu fa yàlla daala ke xejjam nekk boo fa demee gis gaa yu dëdd yu sellal seeni xol yaatu bañante ak gufa ak siisante ak tilim ak ñàkkug yar ak njabu nit yi day xañ ak yaatu lii tax ku tàbbi ca péeyu yàlla nag te amul ab yar ñu gën ne ko tegg yi nay may yaatu yarul te may ñépp ab yar may ko gaa yi la gën te may ko gaa yi nga gën kon ngay amug yaatu yaral sa làmmiñ wi yar say cër te yar sa xolit sa lépp far yaru ngay ab lar bu jubi yaatu bu xol bi ak cër yi ak làmmiñ yu bokk yaroo nga jiitu say kemte foo dem am fa ak yaatu sa xol bi nay fasu yiw làmmiñ wi nay waxu yiw sa cër yi nay jëfu yiw lii lay mayu yaatu noo def nu dul nile far bon sàkku noona ki bañ ñu xat nga xat di tawat doo yaatu duñ yaatu bu noonu kenn ku dul bànneexe kiy bakka nag duniyaa ki saytaana ñii rekkay tere yaatu toxul te ñibbi ca péeyub yàlla faw wute may ab yar ñi lay may ci moom ak yegg ku yaatu ku yóbbu ab yar ca péyub yàlla làq fa ndam ngir ñee dalay sant ñee sàkkul la ak yaatu sëriñ bi yow ki nu xam gën noo xamit ku nu xam nongoogu faw wutal nu xejjaku yaatu toxoo nanu ci lu dul yow faw dëkk fi yow dalal nu may nu ci yow ak cantaku yaatu te rikk dàkkul nu fawit lépp luy taxaxat bégal nu yaatal nu koo yaatal mu bég yaatu sama yilee ma gënal mbooleem ku nekki mayam sa jëm mujjee ma gënal say may aku yaatu nit ñëpp ak seeni may ak may yu rëy yi nga yor jëlal te may ma sa jëm ak jàmm aku yaatu naa yaatu fawwu ci yow nga yaatu fawwu ci man nuy bokk sant ka am ndolleen aku yaatu alhamdulillahi warnul naa la cant gu sax gis naa nga may ma lu raw am xel ci ak yaatu alhamdulillahi warul naa la cant gu sax gis naa nga may ma lu raw am xel ci ak yaatu man yaa ma may ci sa bopp yaatu ak ci sa ñun te foo ma gis di ma ree lii rekk di yaatu am naa ci yow am ci mbooleem gaa yi topp ci yow jàmm ak ngërëm aku yiw lii doy na ak yaatu def naa la ab sang def mboolem ñi topp ci yow xarit ak yi àndandoo dolleeti nu yaatu bu dul ko nag ñàkk yóbbal kon man ne miiku tey sëriñ ba ndax bëgg naa koo gis ba santati ko ma far ca dem ndax ku ñàkkum ndox la nemmiku dex war dëgg-dëgg ma jóg sax dem ca nemmiku ko njegam dangaa néewatim ndox mbaa nga ñàkkati ndox jëmal ci dex dexe lay dollee ka may gisi ko ku ñàkk buy jekki gën faa ñàkk far ku amit buy jekki dellooti far ci ñàkk jekki ba ko sëriñ dafay sànni ñéppam buumi topp ndigal ku jàpp jëm kaw ku jëppul ñépp far kawe ko ñu jóg di wut peppakum ndox kay ba dikk fi dex ak dàgga ji wéy ku cay sàggan ñu ëppule ko ku nekk cim lef di daagoo kay taxaw tani nag day jiitu ñey jaaba kay daw day larax mënu ko ku nam ma jiitu kemam day sànni ab sëriñam jëmmam aku xolam ak léppam te far bàyyiku joxes lëf ak dese aslëf ak murit lagu bon te kenn deful lu ko mooy koo gis ba liite na ko murit bu dee bon a kay suufee ka ñàkk xoram tey dem ci sangam a kay ñëw léegi bon sori ko murit gëjeekub sëriñ rekk ay loram di ayam telum murit rëy rëyit gëj fit sëriñ waru ko sëriñ dalay defaral say mbir defar sa kanam watul la nag sa ginnaaw it gëj këram matu ko murit siyaare ji daalay ab sagam di ndamam bu dul siyaare ji dootul am xoram gëju ko ab sang dagg la ak dex dee ca dem ak a ñëw kon léegi koo gis ci yow man koo duyal yewi ko murit bu it tëja buuree jëm ci ab sëriñam nit ñépp sopp ko seeni it tëja wuti ko buural te buural te buural dellu buurati yow jëm nag ci sab sang fab loo man yëtaale ko ko sëriñ du xeeb ak a naw lëf loo ko sànni mu far te daldi jàpp lu gën nag loola sànni la ko newul lu yéeme ba dee xeebul lu tuuti ba dee ngir xeebulu tànk moo nag junni it nëwu ko junnee ki tànk ki koppar lépp loo ko ci jox mu fay la yokkal la may law tagg sange la ko junnee ki tànk ki koppar lépp loo ko ci jox mu fay la yokkal la may law tagg sange la ko ba noppi dox sa digg ak loro faj sa aajo bu wér foo toll am may yu rëy yoo xam ni xel daju ko foo jëm ñu bokk di barkeeloo ko taasu ci yow kala yi defal li le mat nay dox di fàttaliku gërëm ko sant ko cantam sax defal lu ñu man toppal ndigal yow sa diiru dund sant ka ko gërëm ko sant ko cantam sax deful lu ñu man toppal ndigal yow sa diiru dund sant ka ko gis naa fi man senn ndaw soo xam ni ko xun a bët ku bëgg saa mbég na may ñaanal ma yeggale ko gis naa fi man senn ndaw soo xam ni fu xun a bët ku bëgg saa mbir na may ñaanal ma yeggale ko diirub ba saa bët bi fettee jàpp tey masuma gisub kemam ak kemam sax yàlla sakkagu ko xelam ma ak yar ba ak taaram bu réy ba ma gis jaral na ma jàpp tey jii sépp ndaw sànni ko bu nee doyul nag ma fab luy doomi nit ñi ko am fab saa ndeyeek sama baayeek saa bakkan wise ko danaa ko jël man bu soobee yàlla mbaate ma dee ngir sépp ndaw su ko mooy saa bët bi jël na ko xayam gu réy gama xam ak cempalam gama xam ak njaxlafam gama xam giñ naa ni kenn amu ko lewet na am fula am ak doyte mokk ba dee buy ree nga àttana fab ab junni neexale ko yàllante woon man ma am saakuy dërëm yu ni xus ba xam ni buy reeti may fab saaku weexale ko bu saa alal bari woon kon jépp ree ju mu ree ma fab ca ab junni ànd ak ree ja sante ka ko yal naa ko jël waaye ndaw si am na yaari ayib du fekki wujji te bëggul wujji fekki si ko boo koy labat bàyyi képpas ndaw ba jël ko bu wér te boo jëlee boo ko dee yet wut ji muy yewiku day yër sa xol bu fa dee gis seen ndaw su ko moy mu dal di fay bu fayee tuubal te daw dabi ko watul mu fay ndaxte buy fay yàlla dootu la fay aw yuute dootu fajit say lor aha watu ko lay tax mu fay bu ko def lay tax mu mer bu ko def lay tax mu génn sa xol bii mbaa sa kër moyu ko buy génn xol bii lëndëm kër gépp tas ni wesar moo tax la koy génne war ngaa lagg génne ji ko bu seeru ndaw su ko moy bul mokk ndaw su ko moy luy bëgg a dox sa digg ak ndaw si ma gis moyu ko ngir ndaw si senn la déggoo kenn ndaw su ni mel ku ndaw si dëddu asal yonen ba dëddu na ko moo tax ba ndaw si le mat naa jublu jublu gu wér ba am ko ndax yàlla ak yoneen ba jublu na ko koo xam ni am na ko am yoneen ba fàwwute am yoneen ya ak yàlla ak loo xam ni bëgg na ko sëriñ bi yàlla na nu may boppam te yàlla na nu may ak can gu réy gu nu jox ndaw si ba yeggale ko sëriñ bi yàlla na nu may boppam te yàlla na nu may ak can gu réy gu nu jox ndaw si ba yeggale ko sëriñ bi sa digg ak yàlla raw nam xelak xalam te raw njortu man seenu diggante dama alam sëriñ bi sa digg ak yàlla raw nam xelak xalam te raw njortu man seenu diggante dama alam ñi xam yàlla ak mbooleen ñi am yàlla yaa ci raw sëriñ sépp am ndam waaye yaa ëpp ñépp ndam sëriñ sa bañuy waalante càng ga yaa ko jam bañuy feete kay dàqee karaw jël nga ndam ba dem dangaa teggi tuur ak ndam ba faw toor a kuw la jël ku toppul ci yow mii dootu am ndam du am xoram bu may baax a kay bon maa ngi nii topp man ci yow di seenu ngëneel ak yërmandeekub taba ngërëm wolof nee na koo àndal lu rot ci yëfam nga for te yow la nu àndal yow ki rot le lu dàq lem rotal nga fi nun ak lem rotal fi lu dàq lem rotal nga fi nun aw ñam rotal fi lu dàq ñam ña mbooloo ya daa jox seeni mbir bu ñu del si woon asal jox la seeni mbir te sedd li seeni gëm xamal ni dangaa dox yàlla yow fu ko kenn doxul mu jox la lu tax xejjam yu rëy yépp faf wedam samay gisu feeñul woon ñu gis ko ci yow bu wér ñu fas ni gileen may yàlla jox ci ko ab laram dañoo sedd mboolem sang yépp ñu dem nga ñëw ñu jébbal la ñépp ak seeni cër doy nga noo xalam sëriñ béere yu may waaju nekk a ngi koy dawal sëriñ saa ngi koy jaabal murit yaa ngi koy dawal kajoor a ngi koy neexal bawal fab ko teg ca kaw te fii na ngi koy mokkoo ka tuubal a kay ragal jolof njaambur ak waaloo ki fuutaa ki saalum ak fu nekk a ngi koy bégloo ka may paala kay bégal mbiram fis na jantub digg njolloor a ngoogu nag ku nekk a ngi wiy cig leeram ak njariñam asal mbiram fes na jantub digg njolloora ngoogu nag ku nekk ngi wéy ci leeram ak njariñam asal danoo war a booloo naa ko jaajëf ca kaw li kaw jëfaale na mboolem nit ñi fab seeni coono jël dogal nanu mboolem fakki ngir ñi ba yépp dog mu jox nu ndox ak ñam teg ca mbooloo mu nuy jëfal fadang na sunuy say yépp teg ciw sayam ni cas ni santuma leenas lëf lu dul aw ngërum ndigal yenul nanu mboolem tiisu tey jile ak ëllëg musal nanu ci mbaadoo la may nanu xel yi dal ku ciy bari man-man nag ba jëm ci lu dul mbiram lu lew lew lu jub jub jub lu jur lëf ndarañ mbugal boroomam da koy jox faw moo tax du ñàkk lëf du ñan du nangu nu ñàkkit lëf ñoñam ñépp lay musal boroomam da koy jox faw moo tax du ñàkk lëf du nangu nu ñàkkit lëf ñoñam ñépp lay musal dafay mos a kay moslee ka mucc ka mosle nag lorul loruwul moo di ndogal gu ñu xëy dogal du jinne du nit du rab du lëf ndare ak ndogal gu yàlla dogal ngir moo ko xëy fal mu xëy nu fal boroomam da ko wullil notal ko ku def laram ku koy gis di wax aw yiw di jëf jëf ju sedd xol ni xam-xam jafeeku jur ku xëy boole yépp am te jëngoo liggéeyoo yàlla na ngay sant kat bu rëy ku xëy fari fug raasam yu jub yu mu raasiwul akub xam-xamam farrey gëleem ak ñayam yu rëy sëriñ bee ma jébbal yii te yërloowu may yaxat saraaki wesar ak way jëfam jéeka saf te rëy gañax na ma meew ak mbaanig ak yàpp may ma diw musal ma ci sàmm ak wëgg ak rat lii te rëy musal na ma ciy nattoo ki nax nax ak i nax ak yu ban yépp biir ak biti fal na ma fal gu rëy ubal na ma mboolem lamb yépp fegal ma nag tëbëg bëre ak léewoo karaamaa ngi nii gu rëy tojal na ma mboolem réewi cantit ba yépp toj mu jébbal ma leen ak ndolla nag ndam lu wér lu rëy damaa fab tëbëg man jépp lor ak lu dee fi bañ dalang man ci jàmm ak yépp yiw wii de fii ne rëy damaa fëkk jël ak man lu may bañ ak ay ragal dalang man ca firdew see ki mbég may ma may yu rëy damaa ŋàbbu naalang man dalang man fa raw xalam rawum xel ma raw xel raw xalam jiitu bari yu rëy gërëm naa ko def naa ko xarit bajja bee ma jig bu may jëm ci moomas lëf mu dal may falang lu rëy falang na ma junni junni ak gaayu sedd xol teyal naa ko jox cantam gu ñor guy waral lu rëy damaa ñëw mu ci bés lës sarax ma ma sant bés mu fab ndab la ak boppam jañax maa ki mbég yu rëy damaa lab ci moom ak xiiwalam yi te koo labal nga man dara koo lab dëgg yow doo ca man lu rëy labal na ma biir ak biti moo tax ma lottu man ci cant ga jot ak xam nga koy jox mbégam mu rëy na waa penku ak waa soowu ak waa fu nekk ñëw gërëm li ma kos lëf moo yayoo jox ngërëm lu rëy na buurub aras ak yonnenam ba ñëw ak malaaka yépp te jox ko cant guy wéy di wéy te rëy na yàllaa ki gaayam yépp dikk nu jox ko lay mbégam dëgg ak àqam te àqam du man lu rëy defal na boroomam ak moroomam mu nekku yiw li lee waralu cantam jafañ ndaxte day lu rëy lafal bi jafee jot lépp yal na nu dund nun ba jot caaki cantam boole cay ndolle nam yu rëy lafal bi jafee jot lépp yal na nu dund nun ba jot caaki cantam boole cay ndolle nam yu rëy yi dëkkal fi xol yi dëkkal dërëm yi fi sunu kër yi te saytu bir yi fegal nu lor yi fegal nu moy yi indil nu may yi ànd ak ngërëm yi fayal nu bor yi defar ayib yi néewal nelaw yi wéral yaram yi xol yi defar ko jur gi baril ko ite yi fab ko yeesale kër yi alal ji nay taw ànd ak jëfu yiw ku nekk jub aw sa yooni mbir yi bamba defar nu fawute far nu fawute may nu nu aw ndigal yi may nu ba nuy xëy aw ngir ma tey yooyu di moyu ak moy di mus lu moy yi may nu nu fàddu lépp te fàddu ci yow mi fàddu ci xëb bi lem yi musal nu lem gi ku mas sa lem gi bëgg sa lem gi ba fàtte lem yi yaa dàq ak lem te dàq aw ñam te ku la ñam xam xëpp nu xëb yi kuut lu dul yow dalaa xamul yow ndeku la xam yow du faale yëf yi foo ne ku fay gëj asal ma ngay gëj àjjana tey gëj ngën ji barab yi foo ne ku fay gëj asal ma ngay gëj àjjana tey gëj ngën ji barab yi ab dof bu dee gëj fa kër ka koy faj ndof ga lu koy faj wax leen ne dof yi tey dof yi dee leen dem ndax mu faj leen bu wérte may leen ngën ji garab yi bambaa di kay faj muy yàlla tey faj ak ñàkk tey faj ràggi bakkan yi te moo di kay fekk musiba tey fekk gàcce yi tey fekk ëllëg mbugal yi moo di kalay may di la fegal mooy di la fegal ay jubal sa mbir yi may nga nu aajo faj sunu aajo yaa mata aajo te mata fekki far nga sunu bon fegal nga nu bon yaa tax ba nuy gën jaajëfe mbàkke ma jóg man liggéeyal sëriñ bamba mi liggéeyal boroomam ba am lii mu am ma jóg man liggéeyal sëriñ bamba mi liggéeyal boroomam ba am lii mu am ba ñuy kër këree kay xaree kay wasal ma ngay jaamu yàlla ka way yonnanam ba ñuy bëgg dongoo ka fóot ak cëriñ ma ngay bëgg yàlla ka sellal jëfam ba ñuy bëgg dongoo ka woot ak cëriñ ma ngay bëgg yàlla ka sellal jëfam ba ñuy fonk juddoo ka fàgguy alal ma ngay fonk diinee ka fàggu bi yaram ba ñuy denc jurgee ka aayee ka nay ma ngay denc téeree ka dëddug juram ba ñuy daw di dab ëddinaa kay kobas ma ngay daw di dab yàlla daala ngërëm ba ñuy xalxalee kay jamaalee ka jam ma ngay diira kay jam ngërëm jam na ndam ba ñuy ngal-ngali taale jàngoo kawal ma ngay sos ca suufuk murit cey mbiram ba ñuy xam bu kéefër di xam bu cëriñ ma ngay xam bu taalub boroomam diggam ku daa taala kub taalamit fay na tey kamaj bamba daalay bërëx ak ñu ñam te yàlla nay bërëx nuy bërëx muy bërëx nu teg tey bërëx faw koo ji ci wedam nu déggoo juboo am nga néel ak xoram te wér gudd fan am lu kenn mës la am nu déggoo juboo am nga néel ak xoram te wér gudd fan am lu kenn mës la am xam naa ci yow lu ma saf am naa ci yow lu ma saf mas naa ci yow lu ma saf ngëm naa la dootuma ba yaa nëbb jépp ayib yaa feeñalit lu rafet yaa boole ñépp mësal yi saf ñépp kenn du la ba koosee na gën maamam ak baayam te yaa ko waral yaa raw ña raw seeni kem yaa gën ña jot daya ba yàllaa ngi lay gërëm ak yonen ba ngir li nga def ci jaami yàlla yi ak cëg yi nga fekk musiba yaa topp yàlla bu wér roy yonenam ba bu wér te dàq saytaana ak yéefar yenot xare ba yow yaa di kenn ku gën ay junni maa la ko wax lor woo nitëf nite gën mboolem ñarang faja ba tooyal nga xol yi te tooyal kër yi lëf wëwatul kalay bayee te du man moo tax yowit bu ma ba tooyal nga xol yi te tooyal kër yi lëf wëwatul kalay bayee te du man moo tax yowit bu ma ba sëriñ bi day woote iblis it di woote ni ay ku nekk ngi wut ku muy yóbbaale moo naka mu sëriñ bi day woote iblis it di woote ni ay ku nekk ngi wut ku muy yóbbaale moo naka mu ku nekk am na këram kum jàpp yóbbu këram ku réere kër ya danaa jóg wakku kër ya yu mu ki àjjanaa di këram kii naari moo di këram ku wuy ji saytaane boo dee saw yaram xoyamu nan wuy ji bamba mi kenn dul fam nitam di xoyam saytaane mii moo di noonu bàyyi yàlla ji mu kuy woote ngir nara xiiwal wuy ji koo gën a yey di wuy ji kuy woote ngir nar laa alag badamu kuy woote ngir nara xéewal wuy ji koo gën a yey di wuy ji kuy woote ngir nar laa alag badamu bun jënde ban baati lëf ngir ban ba moo gëni ndey moo gën nijaaye ki baay ak soxna yi baramu di toppatoo ndigalam xam naa ni moo gën a rëy di xëy di daagoo kanaataa marel ma ko mu murit bu yegg xolam dootul wëndeelu ba daj lu dul sëriñ ba ku xam boobee murit anamu sëriñ balaa dëkke ak xol-xol ba dootu xalam soxnaa ki doom ak i waajur gaayi nan kayamu nan génne addina sun xol fab sëriñ bi dëkkoo addina day silmaxaalu xol ba muy palamu kamat bi daw moo di waajay laamisoo ka nuyoo tey tàbbi néegi moroomam lum amit telamu te rek cilim ak ay yendoo jëf la taalu be xam lu taalu bey xëy di rag gi yee la koy sëlamu raggu yaram ba mu set ak taabu lum xala faj te xol ba koy suubi man koo fab di suube ndimu teree ka wan sooka sangoo saaku lum xala lor te xam ni xol baa nga mel ni jant nan fatamu murit ba dëgg dafay xos nit di saf na gu rab du tabbi nee gub jigéen nit wii meloo xoramu ak bëgg àddina rekkay tee murit di janoo ak taaxi firdaw si firdaw see di ngeen ji lumu ak bëgg àddina rekkay tee murit di janoo ak taaxi firdaw si firdaw see di ngeen ji lumu danaa la taggati kat yow mbàkke mbàkke bi le te mbàkke mbàkke bi nangul dëgg tagg wi le danaa la taggati kat yow mbàkke mbàkke bi le te mbàkke mbàkke bi nangul dëgg tagg wi le danaa la samtati yit yow mbàkke mbàkke bi le te mbàkke mbàkke bi nangul dëgg cant gi le aw tagg yaa ko yeyoo ak cant yaa ko yeyoo yaa def jaloore yi tey faj aajo yee këdale sa cant war na te man sax maa di kam gën a war ngir yaa ma yor di ma dàkkul lépp luy dogale man mii joxoo ma ku bon man mii joxoo ma lu bon murit yu jub yaa ngi ak yëf yi nga may dëgale joxooma kuy karabaane kay doxaana ka fen mbaa kuy béjoo ka taxawaaloo ka foo ka mbale aw ma murit bu ma naa ay may ma fas wu ma war mbaa may ma sër yu ma sol mbaa may ma ndaw sëfale waroo mi ngor nga ma jox man oo ma kenn ku bon te oo ma lenn lu bon kenn mësta séeru li le te oo ma kuy wax lu tax ngay lekk fàtte ma tey te oo ma yit kuy werante kay xuloo ka xule naxoo ma man danga maa tànnal lu rëy lu rafet jeyoo ma sankoo ma seetaanoo ma may fetali sama murit foo ko gis day mokk tey yaru nag tey sant tey gëm boroomam tey baloo kabale lii lépp yaa ma ko may yow mbàkke mbàkke bi kët ndeman yeyoowuma lii yow yaa ma koy terale joxoo ma ab xaritit boo xam ni aajo na la lu dul boroomam ku am saa may gu sell gile joxoo ma it dëkkandoo jiy soxla woolu la may yetoo ma soxna su may reetaan akay senali nawet bu nangu nga mboolem waaju bay dana am ay dàggatay am itam walkat yu koy walali koo xam ni jox na la boppam yow te mel ni ku dee te yuqiwul dana am jëfkat yu koy jëfali yow yaa matub sang yaakaaroo jullit ragaloo yéefar amoo ab xarit doo jëng doo gënale yàllaa di sab sang yoneen bee di sab xarit it foo toll yaa ngi liggéeyal kii di jaamu kële nangul masaata gi wii ak cant gii ma la jox te may nu say ngërëmit yow mbàkke mbàkke bile nangul masaata gi wii ak cant gii ma la jox te may nu say ngërëmit yow mbàkke mbàkke bile sëriñ bi bokkoo ci ñuy wax lëf ba noppi mu dañ wax joo wax ak kay tuutee meereyam doomaat bokkoo ci waa démb ak waa tey ëlëm nga nu yow sàccee fulas lëf te sàccoo kenn yow doomaat doo kenn yow kenn du yow askay sa mbir wéyeful sa ndend nekkul ci dëndub suuf si tey doomaat yaaram bu tedd nga yow as gor nga it su rafet ab jaamukat nga bu rëy yaateenu bon doomaat yaateenu bokku torox yaatee sunuy bañaree yaa tax sunuy soppe bég yaa tax nu bég doomaas yaa sedd ker rafetu xol neexi wax jubi wax am ngor rafet ji ko njaxlaf ñàkku ay doomaas yaa nuy defal lu nu naw yaa nuy defal lu jafeñ yaa nuy musal ci lu bëggeeful asal doomaas taxañ nga mboolem lu ñuy wut jox nu benn nu jël di wey xaral nga nu baaxit nuy gërëm doomaas yaa jàpp cant guta am benn bis ni nu am nuy sant kay nangu ngay dollee kawis doomaat yaa jàpp cant gu te am benn bis nu nu am nuy sant kay nangu ngay dollee kawis doomaat terew nga ñépp defar mboolem ku bon ba mu jag ku nekk jag lu na ngir yow mii ndaxam doomaat yaa boole ñépp musal yaa boole ñépp jariñ yaa dàkkuti sa ku ay kër jépp lor doomaat musal nga mbooloo mi facceenu tawat jërëjëf ku nekk ambal na la yu ngir sa jëf doomaas musal nga mbooloo mi facceenu tawat jërëjëf ku nekk ambal na la yu ngir sa jëf doomaas du jàq mukk ci kuy léewoo këtëb ci sa kaw ku yàlla farle nga naagub jël doo daanu bul jàq mukk ci kuy léewoo këtëb ci sa kaw ku yàlla farle nga naagub jël doo daanu koo xam ni kii ci diggal lay wéy ku tam ni ko is am gàcce boole ma rek rus teg ca nag daanu kuy aw ndigal ku ko songit daanu jël bu rëy awal ndigal ku ko aw doo damm doo daanu kuy aw ndigal ku ko tëb songit mu féete la kaw ku song yàlla lu am am laf dafay daanu lu man di am na sa digg ak tëb sëriñ ni na ñax kon làmb joo seeru ub koy wéyte doo daanu bërëb te suuf ak bërëb songante bokkuñu la bërëb te suufa rafet moo lay teree daanu nitug te suuf ak nitug saahir nuroowuñu la foo gis ñu songoo nitug saahir ka moo daanu bu ñaari suuf yi songoo nag ba ëpp ku ngërëm notub kemam bés ko muy jëm suufa kay daanu wutal ngërëm ngërëm may laf nit ku ñàkk ngërëm xiibon la rekk bu bon kuy song muy daanu doolee di sax ci ndigal bàkkee di yar bu rafet bu rëy ka jub di jubal tey dàmp ñay daanu mbooloo du lëf ndare jub wétal du lëf ndare gëm sëriñ du lëf ndare goj boo ngay ba doo daanu xiiwal du lëf ndare pas-pas ci murit bu rafet murit bu pas-pas potaaroo doo ko gis daanu xiiwal du lëf ndare pas-pas ci murit bu rafet murit bu pas-pas ba taaroo doo ko gis daanu banaa la ak mbir yi tey maa ngi ci say yoxo man yër naa ba xam ni ku dul yow mii mënu te du man yëg naa ni ak bari man-man rekk tëxti la gën loo xam ni tëxti la gën nag sànni rekk ca gën li tee ma yegg ci yow man ñii ba am sa ngërëm ci man la kay du ci yow ngir maa la wax waxi fen maa wax ni jox naa la saa mbir mii fabal te defar ba noppi yor sama mbir saa jëf jilee gën a bon yëwwaande bul topp sab lar ngir amul ku la moy te am nga yow ku ko moy moo tax defal ko lu gën faral ma moy yi ma daa moy soppi leeni yiw ak tawféex ak yi ngërëm ak barkee ki mbir yu yéwén te may ma dund ak wér ak way may ma yit nu juboo loo digle faw wet na mel ni lem gu taaje fi man mooy naa ba noppi te bëggu may te bëgg mbayit moo tax ma dikk fi yow mii am te yéene te man yow ngeen ji sang bu dee faa jóg di feek ci këram ñëw naa ngirum ñàkk gaawal may ma am nga yewen sama loxo ngi lee tàllal naa ko teg ci lu rëy loo xam ni talli na saaxal ñax yi ak sa bakkan ngir yàlla ak Moustapha nag ak saxaaba ya ak malaaka yépp fajal saa aaja yow ki ma gën li tax ma jóg weesu mbooloo mépp dékk fi yow dañoo yam ak ma ni biir ngir kenn mënul te du man li tax ma jóg weesu mbooloo mépp dikk fi yow dañoo yam ak ma ni mbir ngir kenn mënul te du man bu gaa yi dee wari fas te kaala woo ko tëbal yow bàmba ngay jàng téere bi yàlla bee ko wasal senkoo sa dund bi senkoo dundi gaa yi nga yor doo sanku doo sanke yaa aw ngir mujjum maasal koo gis xamul nga xamal koo gis amul nga amal koo gis mënul nga mënal koo gis mu sew nga réyal doo gëdde doo xaste doo mooloo ko wax ni doxal doo fakk-fakk lu nit doo janni doo toroxal gis nan ku jaaxali bokkam ngir bonam ga mu bon te waxtuwam la nuyoo yaa jàpp bon nga setal naar ak wolof ak séeréer ak pël ku dikk nga fat doo dàq kenn te doo wax kenn yaa ma sonal sa barke bi taxu laa def yow lu dul la la war bër-bër lu woo texeetoo jëfoo për ak di tëgal réewoo fa woo te defoo kër gi nu gis mu di kër yow fëkk woo fa te woo it yàlla mii nga àndal yow rekk am li nga am yow bamba mii te tëboo doo gis ku am li nga am yow bamba mii te tëbul bajantuwoo féq woo baj baj lu woo wonu woo te kuy bajantu akay baj baj lu yaa ko yafal séeroo rëy woo jëfi woo sab kem amul te du am te boo waxee ni sama kem am na it bariwul diirub li niy dund ñoo ngi sàkku nag sa ngërëm luy tee nu am sa ngërëm lii dëgg nang ko sori raxas nu ban set a set ngir nun danoo bon a bon te bon gi yàgg na sun mbir yaa ngi nii defaral tàggoo nanoo ki sunuy bokk ak sunuy xaritit ba dikk ànd ak sunuy dab rikk far nu duyal bun dellu sun kër di rootaanee ka xiif ak mar feesal nga feesal nu bun dellu yi rawee ka nasal bun dellu sun kër di rootaanee ka xiif ak mar feesal nga feesal nu bun dellu yi rawee ka nasal sëriñ bi man bu ma santee sant bay bëgg ba ngay jàpp yëf di ma jox yow mii te doo xama ba sëriñ bi man bu ma santee sant bay bëgg ba ngay jàpp yëf di ma jox yow mii te doo xama ba man ñii dama war a jóg tey sant sant ba dee ngir moo di ngor te lu dul ngor ab jullit na ko ba yow yaa ngi may jox te xeeroo yokkiwoo bayiwoo kon nag na may dee te yokkeetee ka xaaraka ba yaa di jullit yaa di as gor yaa di ngën ji sëriñ te yaa di ab yaaramit jiitul ni wéy bu nu ba sëriñ si ak seeni mbooloo ngi nga boole yilif mboolem ku fi toppe ak ab topp yaa ko fi ba kenn toppatul ku la moy kenn jàppatul lu la moy yaa jàpp sa sang yor moo tax ba kenn du la ba yaa jàpp yàlla bu wér yaa sànni yët lu ko moy yaa xajji lor ba mu dem yow kenn dootu la ba te yàlla kenn la deesul seer mu ku kemam yonen ba kenn la ngay kenn nit ku xam du la ba yoneen ba ak yàlla nag yaa làq seeni ngërëm yaa saytu it seeni yëf daf baa di waajala ba koo gis mu weesu la it day dellu seeti fi yow te naa la may ma ndigal man yaa ma doy bu ma ba ku dem fa yàlla te àndul ak yewit du ko wax lu dul demal toppi waa ji sang bee nga fa ba koo jàpp yow yàlla ak yonen ba dal di ko ngëpp koo jàppulit yàlla ak yonen ba dal di ko ba yal na nu jàpp te yow mii yàlla boo nu bayit te yal na ngay yeno yor suñ mbir te doo xama ba yal na nu jàpp te yow mii yàlla boo nu bayit te yal na ngay yoro yor suñ mbir te doo xama ba yaa gën ci aajo ku dul yow kenn melul ni nga mel doo jàpp aajo ségal muy jëm ëllëg di farax sa napp bi ku ci tàbbal aajo faw nga faj xamoo ci aajo lu dul faj mbàkke ñépp nga jox yaa jox ku nekk mbégam rendil ko ak tawatam suulal ko aw naqaram askay lu dee fati wax woonaa la waxtu woo may xaaraani réer ak i añ nga daldi may wuyu jox may ndab yu tedd yi sax wonaa la it ba ma daaraf léeka xiifa kamar nga daldi may wuyu faj saa aajo doo kama nax wonaa la it ba ñu may wax yaaka soo fa ka bon nga ñëw safal ma ma saf nag sàpp ñépp ni ah wonaa la it ba ñu may suufee la kay defu ay nga ñëw ma yëkkati may may ndam ku nekk di lox wonaa la it ba ñu may jànneeka buuxa katas nga dikk yaatal ma ñay buuxee katas nga jañax woonaa la it ba ñu may wax kenn yeesu la yow nga ñëw ma fal ñama daayam ñépp rus te torox setal nga saatuma xëy baaxal ma ñépp di gis nga far samay lor fegal ma ñàkk yaa ñori sox sa benn soxu rek moo gën fopp junni di sox yaa may ku nekk ndawal yaa mat di sant ba xëx ci fàddu ngay jamte doo mooy mukk loo fi talit du soox a kay jéem a dem ñuy bëgg a jàpp mu fëx fetal nga xol yi ba mboolem xol yi daanu fi yow nga jàpp jëmm yi def leen yi murit yu farax sa dund gi yal na yàgg ak jàmm gudd te yaa nuy teewe lépp te ànd ak mbég yu lor bañ a rax amiina amiina nun ñi ñépp yal na nu am cantu ki dul bàyyi aajoy jëm ëllëg di farax ku yàlla dénki murit ràññee ga war na la ngir